sama avis rek comme tout bon citoyen mhm. xam naa ne ñëpp la jàpp euh, en parallèle aussi dinaa fàttali ni man aussi j'ai été analyste de données footballistiques à alors euh, je m'y connais un peu euh, match bi moi je vais un peu jeter des pierres au coaching en fait. à Aliou Cissé. à Aliou Cissé exactement. pourquoi. parce que moi un match qui était à notre en fait c'est un match qu'on devait gagner. d'autant plus qu'on a su marquer dès les premières minutes à la troisième minute je plus ci la ñu dugal en fait. Ah du coup le on devait faire le tout pour rey ko au premier même bu ñu dugal le deuxième but deuxième mi-temps bi ñu duggee on par exemple à l'issue système lan la woon les quinze premières minutes ñu pressé ñu pressé gars yi fexe dugal malheureusement dugal nañ on a réussi ça mais après on a joué bloc bas on a souffert tout le match à l'issue toog si match bi pendant tu as mis en place un système coach yëpp noonu la avant match sa système mais boo dawalee vingt. vingt cinq minutes trente minutes nga gis ne tu de terrain est presque inexistant pourquoi parce que on avait Pape Matar Sarr Lamine Camara les milieux lañu joué parce que on avait des pistons sur les ailes. Mm-hmm. ñoom seen milieu dañu ko intensifié y avait y avait Sangaré Seri Seri c'est il est expérimenté. Mm-hmm. a c'est un très bon joueur c'est un très bon joueur. techniquement il est très fort hier il était excellent franchement il est robuste il est costaud nga indi euh, Sangaré gis ngeen ni ñu toll. mais dañ doon bouger le le milieu de terrain dañ doon bouger comme lu leen neexee en fait. Cheikh Aliou Cissé dafa ñëwoon peut être ne dañ téye bal bi les gosses ils jouent bien à la baballe mun nañ téye bal bi faire ay def ay transition génn xam nga vite fait ñoom ñooy gën a gaaw mag en plus daw pressé et tout mais bu dawalee gis ne ñii physiquement ils sont pas présents parce que booy ils ont ils ont donné tout hein Pape Matar Sarr Lamine Camara ils couraient dans tous les sens di pressé. mais après physiquement tu vois qu'ils sont c'est ça et bien plus cette cette cette cette, cette puissance euh, ivoirien yi mais da dugal koo xam ne comme Nampalys Mendy lui il est physique mun na dem duel ak gars yi ñàkkante ak ñoom même bu dul dara sax il pourra contrecarrer les phases offensives de l'équipe adverse nga am ku yàgg il de l'expérience même même bu ñëwee moom aussi il pourra faire parce que y a y a des moments où am na ay actions yoo mais booy mënuñu ko dañuy ñëw mbëkkante ivoirien yi après dañuy bouger après ça continue le coaching ivoirien il est il est il est il est il est très intelligent. kii mm. mooy le capitaine il est il a plus d' expérience équipe mais ban la ko teg teg série gars yi football deuxième mi-temps mu indi ko du ñëw il a c' était le tournant du match en fait. Mm. parce que kii dafa dugg rek match bi gën a transition yi gën a gaaw. mu mm. ñëw am penalty il a l' expérience penalty du tiit club yi mu jaay def c' est lui le tireur ba ma ma gisee mu teg penalty laa ne lii moom. c'est mort c'est ça en fait léegi nag ñun comme c'était match boo xam ne comme saa waay ni mu ko waxee rek je vais le ko souffler trop. dañ que Côte d'Ivoire. man mii démb bi laa toog la il a mal débuté sa CAN en fait. Mhm. dañoo demoon ba dee. ñu repêché la. par chance ah. c'est ça par chance meilleur troisième. maanaam lueur d'espoir boobu noonu nga nekk pays organisateur c'est une renaissance. dañuy ñëw xëpp ci kan yi def ci li ñu am yëpp il n'avait plus rien amul pression. Mm. parce ñoom. toogoon nañ ba pare nañ parce que loolu la saa wax c'est Sénégal qui avait tout à gagner de favori ñoo war a dëggal suñu bopp ñu wane ne ñu équipe bi da koy d'autant plus que boo interroger Issa Côte d'Ivoire daf ñu mos sonal. dëgg la suñu bête noire la. dëgg la mais man mais